voilà merci Aïssa eh, ma dem directement foofu góobu ma am na risque lu tax wax ko tey képp ku bëggoon génne ñi nga xam ne d'accord ñoon ci soit Macky Sall génne ñu yegg ba fii jàpp naa ñëpp ñu fi des ku Macky Sall man ti choisir dañu resté ci wax ci loolu aussi li ma wax te ku ci génne aussi doo am dara ñetteel bi nag pour ñi naa ay élection du fi am man moom li ma jàpp Sénégal réew mi kenn mënuñu tere def élection à date ni ko président waxee deuxièmement li ma chaque jour rek nañu euh, wax na ko nee na kenn mënul traité dem élection xaaral ma pare rek xaaral ma pare rek Aïcha Aïcha xaaral xamal Macky Sall wax na ko fii hmm. nee man il a la sous-région parce que de la doon ko sa déggati pour wax na moom la neex mu bàyyi di seetaan Sénégal fii ñoom wax naa leen ko chaque jour ñoom ñoo fi newoon te élection du am élection amul hmm. fii c'est le phénomène de Karim Wade investir nañ ko defoon nañ lu ne te bi taxul mu jàll à c'est la même chose moo ñëwaat ñoom nañ investir nañ def leen def loolu mais conseil conseil ku mu ne doo nekk candidat doo bokk te fii képp ku ñu yaay bokk yaay bokk te élection yi kenn mënu ko teree am fii xam nga coolee fi ne gis nga beneen nit non xaaral ma nag xaaral yi du ñu seen a fallu que loolu loolu loolu solution gis loolu commencé mu xam foofu a wax laa la bëgg a wax ne du diirante mbàgga mais ah. état aussi dafa am ñu am responsabilité maanaam Sénégal du beneen nit yooyu ay taxaw ne bu dul man du ma bokk ni Macky Sall bokkulee te ñu ñu nangu ko ñi ànd nag moom ñi bëri ñu gëmoon ne président Macky Sall suñu société moom la ñu bëggoon mu yeggali ko tey mu taxaw ne bokkuma te ñëpp nangul ko ko suba keneen ku conseil conseil wax ne doo bokk aussi noonu la ko say nit di nangoo fii réew mi xam nga dama la ko du kese loolu moo gën li gën a yomb yàq yëfu yàmbul mais à la fin xam nga dafa mën nga postere mën postere ku fii ku ne fii ku fi am kër gars yi am na ku fi am oto gars yi xam na ku yàq sa xaaral ñeenti mbokk si lan lay jaar ba ba rejeté ko. yaa ngi jël raccourci de. bokkul sax Macky n'avait pas le droit de troisième bu ñu xam ne Sénégal administration bi c'est solide yàgg nañ dem élection li leer te adduna bi ñëpp mu leer leen Sénégal élection yi kenn mënu yaay bokk yaay bokk ni 2019 ay candidat bokkul woon mm. te élection am élection yi tamit képp ku ñu ne doo bokk doo bokk